une Production, Gran est le meilleur site internet islamique au Sénégal. une Production. Islam Zaganam. Islam Zaganam. Islam Zaganam. Bismillah. Amnabis. am ku ñëw ne ko ñaanalal ma ñaar ñi ci seen sëy bi ndax ñu juboo sëñ bi ne ko téemalee na ñaanal ñu jub ba noppi door a juboo ne ko xanaa xamoo ne yàq goo gis ci àdduna ñaar ñu juboo te jubu ñu ñoo ko yàq am na ku ma sa ñëw ne ko ñaanal ma ma takk sama doomi nijaay sàngam sëñ bi ne ko jërul naan ndax jigéen ñett képp la ka nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax ak ka nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo ak ki nga am wàll kaneen am ci wàll ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax boo yoree yaa ko boo yorul yaa ko yor kenn mën la koo teree yor ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo boo yoree doo ko yor boo yorul doo ko yor kenn mën la koo tax a yor ki nga am wàll keneen am ci wàll lu ngeen yàgg-yàgg bis dana ñëw ngeen tàggoo keneen fa ñu ko yett yooyu kepp ci am jurul ñaan mas naa laaj itam ne leen dugub moom ana luy mbokkam ñu gën a gën a fal wax lu leerul mu ne leen cox rek kay mbokkam waaye ak ñàkk a mën a ànd tax ñu jël cox sànni fële jël ndawal booleeg dugub te bokkuñu aadama ak awa ak bokk yàllaa koy def waaye ak déggoo mooy dégg ndax ci lees mën a ànd masaawoo seex si itam bañ ñëw mu ne leen yéen ñu nit ñi ñëw ci yéen di jébbalu ci yéen maa ngi leen maa ngi leen xamal ne taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci tooli xare taalibe yi duñ seeni jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sàmmi dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba say taalibe réeruñ ruuruñ yowmal xiyaam ci santante ngeen di mujj waaye ku sàggan ba say taalibe réer wala ñu ruur yowmal xiyaam ci jàppante téere baat ngeen di mujj loolu sëñ bi daana ko digle daana wax ne itam barsàq barab la boo xam ne yaar yi képp a fa maw ak fuuyu daane barsàq ku fa tàbbi te yor dara dangay ngay fuuyu ak moom doo ca may kenn ndax xamoo kañ la bis ci di taxaw nee na ku fa yorul dara bo demee da ngay xala maw ba keroog bis penc di di di taxaw ndax do am dundé da na wax né doomu adam ñent yi képp la ñent yi képp la jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam néna sa jëm so démé ba xàmmeetoo ñamu ñamu neex xàmmeetoo jongama ju rafet ñak nga sa jëm say bokk fa dess say bokk buñ la buñ ba nga genn ñu jëbbal sa borom ñak nga say bokk sa alal la fa des sa alal joojee nag loo ca defutoon ca yàlla na nga xam ne ñàkk nga ko sa jëfa fa sës jëf joojee nag yaar képp la jenn muy ju rafet mbaam muy ju baax bu dee ju rafet mu ànd ak yow ba àjjana bu dee bu dee ju nag mu ànd ak yow ba ca safaan ba wal xiyaasu billah daana wax ne Touba ba ma fiy ñëw yaara ma fi taxoon a ñëw daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ba ma fi ñëwee yaara ma fi yaar laa fi fekk wéndi ak i saawa ba ma fi nee jàng yaara ma fi fekk ku yàlla képp ñor ak ku yàlla kuy àdduna ñor muy mbubboo yàlla ñaari ñooñu nag kenn jeexaluma ji ndax ki yàlla képp ñor danaa ko wammat ba ne ko yàlla ngi ki àdduna képp ñor danaa ko xëpp àdduna waaye bu ëllëgee lu ma yàlla jox ba ma koy sédd ak sama ñooñ bu ma xool ay bët ndax lañ séqoon jox naa ko te àdduna nañ fexe nag ba bokk ci ñi nga xam ne yàllaay tax ñu ànd ak moom kon yi li ñuy daaneel rek mooy ñu gën a xamaat suñu bopp te xam ne moom mës bañ ñu koy nettali dara ca njaareem wax mag ñi ne leen kii de dama ko dama ko soxla waaye xamoon naa ko bu baax ca tukkib géej ga laa ko xamee woon sëñ bi bi ñu ko waxee sëñ bi mu ne kon de bay moo ñu ubbil ko te yaatal ko mu agsi ndax nun loolu wolof di wax ku say xam yenni ko baye boo fabu nun loolu dalunu nun fu suñuy xam yenni ko ñu lal kendal ñun fu suñuy xam yenni ñu lal am na ku ma sa jéblu ci koo xam ne daa jënd ak ndawal jaar njaareem sëñ bi jiite ko mu dem nag këram di lakk ndawal ga mënta ñor mu dem ci sëriñu muxaddamam di ko wax fekk fa baayam bi mu ko ko waxee sëriñu muxaddam bi ne ko foo jaar mu ne ko jaar naa ci kooku ci kër gu mag gi de mu jiite ma mu ne ko kon du lakk ndax kooku mu jiite doo lakk mu daaj koy sànni ndawal ga ne ko kon de dem naa ca moom baayam ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko na la wóor ne boo demee ca moom li doxoon sama diggante yow muy ak njureel dañ na bis ñu ko tey mu ne ko waa baax na waaye daal dem bi mu ñëwee nekk sëñ bi ab diir baay bi tawat tawat ji metti am ñëw am ñu fa ñëw ne ko sa baay daa tawat ñu bëgg nga ñëw yor mu ne leen moom li ñu séppante mooy ak njureel te dindi woon na ko kon du ma dem ñooñu dem ci sëñ bi wax ko ko sëñ bi woo ko ba mu ñëw mu ne ko ba ñuy wax wa wasaynal insaana bi waalidayhi husnan tey taxoon ñoo di ko wax waa waajal te dem daal di yëkkati yaari mbuus jox ko ko ne ko ñaari mbuus yi nag amoo sañ-sañu tekki ci benn li fekk ngay àgg boo àggee nag am nga sañ-sañu tekki benn bi waaye li fekk jeexul amoo sañ-sañu tekki bi ci des ba mu àggee mu tekki benn ba fekk ca cere ak i sondeel mu jël cere ji di ci dundal baay bi bu guddee mu koy taalal ci sondeel yi ba sondeel bu mujj ba di fay la ruubaay ba di génnaat mu tekk mu sañ a tekk be ca des ba mu ko tekkee fekk ca ay càngaay ak ñaan mu waajal ci baay bi mu denc ko ba noppi mu ànd ko jël daal demaat ci sëñ bi naka mu agsi rek sëñ bi ne ko xanaa waarooti nga de mu ne ko waaw Mbàkke waarooti naa de mu ne ko loo ci xamul tey jii la jé jéngub sawaraam dañ te ci yow la ko amee tey jii la jéngub sawaraam dañ te ci yow la ko amee xam naa bu ko toppee day bari nag. waaye liñ ci doon def lépp diñ ci jublu ak jaamu yàlla li ma la wax ne waxtaane sën bi ak sopp ko ak di ko woy mooy sama tool bi may fasoo sax di ci bay sëriñ bu mag bi nag ku koy waxtaane lu yàlla digle ngay wéyal ci diine yàlla waxoon ci alxuraan ne dee leen sant ci wax xéwali buur defal leen te nee na mooy xéwalu yàlla buur bi lii leer na ko xolam ragal borom ñu daanee leen ko dénkaane bii nga xam ne dañoo bëgg bu ñu koy waxit kenn ku ngir mën koo jariñ du ceegi ne dañoo war di wax rek ngir ne diw daa mën a wax wala diw daa nga xam ni wax waaye li am solo mooy li ñu wax ñi koy wax di ko dund ñi koy dégg di ko di ko jëfee lañ ca man ndax sëñ bi loolu képp a ko taxoon di wax am na bis muy wax sax am ku ñëw ne déglu leen sëñ baa ngi waxtaan mu ne ko déedéet waxtaanu ma de damay jàngale ne ko waxtaan mooy kii wax kii wax kii wax ñu tànn ca jenn man damay jàngale daal di nekk ca loola ba yàgg am naar bu ko ne hada min ne xata illaahi ndax li ngay wax daa bokk ci wax ibnu ata illaahi sëñ bi ne ko laa min xawli ibni ata illaahi innahu min ata illaahi wa ma kaana ataa rabbuka mahshura lii bokkut ci waxi ibnu ata illaahi mi ngi bokk ci may yàlla te may yàlla kenn du ko takk fenn jàngaleem yooyu nag daa am bis mu woote moom sëñ bi ca jolof la ba mu fay jóge daa wax sëñ maxtaar penda jang ne ko bu ñu jullee gee ba noppi na nga dajale fere yi ndax damay wax ak ñoom dañuy waaj a dellu ci réew ma ma bëggal leen ab yóbbal bañ jullee gee ba noppi sëñ bi ñëw ne ko ndax ñëpp ñëw nañ mu ne ko ñi ëpp ñëw nañ sëñ bi ne bisimilah kon dama leen di dénk damaa bëgg ngeen xam ne juróom-benn ngi nii yoo xam ne ku ko bëgg ci yéen faaw ngay def juróom-benn ku bëgg a jege yàlla ci yéen nay jàng alxuraan ku bëgg a mucc ci mbugalum bàmmeel lu mu am na ko delloo yàlla suñu borom mi ko joxoon ku bëgg ay àndandoo ku bëgg a mucc bu mu tooñ mukk kuy tooñ du mucc te kenn mënu koo musal ku bëgg a noppalu bu mu fayu ak tooñ kuy fayu ak tooñ du noppalu te kenn mënu koo noppal ku bëgg a am ba dootul ñàkk lu am na ko delloo yàlla suñu borom mi ko joxoon ku bëgg ay àndandoon a jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon danga dab nit mbaa la na leen wóor ne ñaar yi rek a fi nekk aw yoon aku ñal ku jërul ci yoon wi ku ne yaa ngi ci ñal wi ñal wi nga xam ne nag lu ëpp ci nit ñi ca lañ jaar te wàccuñ ko laa leen bëgg a xamal fa muy mujjee ka ca jaar te wàccu ko ku jaar ci ñal day te wàccoo ko da nga dox ba sonn te doo jotu dëkk mbaa nga weesu dëkk di wéy te ñal waa ko waral pakk dana la fél dëgg dana la jam doo for dara te réer le kenn du ko for di la ko jox kenn du la dab itam di la yóbbaale daan ne dégg ngeen ñu ne waa mu ne kaay leen ma wax leen ni ñuy jabootee bala ngeen a jaboot bi mu ko waxee sëñ Maxtaar Penda Jang daal di yuuxu wacc caabi yam yoroon ne alhamdulillah loolu di tax na ñu xam ne danañ amul njaboot ndax ñoom nee na bi ñu ànd ak sëñ bi dañoo jàppoon ne dañoo joxe seen bopp te duñ amul njaboot dañu ànd ak moom noonu rek sëñ bi ne ko waaw waaye bu ngeen ci àggee ba yiri lu toll ni fukk mbaa ñaar fukk jëm nga xëy bis woo leen ñëpp ñëw nga digal leen la nga leen war a digal te yàlla rek tax tere leen la nga leen war a tere te yàlla rek tax juróom-ñeent yëpp gàntu la nga digle kenn rek nangu ko caa def bu ko xeebee sa bopp jàpp ne yaa matul kilifa bu leen ko yeddee ñoom it jàpp na ñoo matilu surga sante ko yàlla sa borom mi la bind bind leen te tanewula ci ñoom ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudoon la wax te ba mu ko waxee ba nopp mënoon naa dagg ab ya teg ca ku jàdd ci yoonu mu teg la ca sansa te mu te defu ko dañoo lànk lim leen digal te mën na koo faj kam tarfatal ay ni ndax moo moomi jaamam sàkk leen bind leen te yow moomoo leen sàkkoo leen bindoo leen dañ laa sagar rek jiital la seen kanam kon muñ ngi ci yàlla am dee leen ko ci dégg ngeen ñu ne waaw mu ne kaay leen ma wax leen ni ñu yore jigéen ba na ngeen koo yor daan na ñoom jigéen ñi de daa am ñeenti jikko yu nekk ci ñoom yu tax ñu naqaree yor waaye yéen góor ñi it da ngeen yor ñeenti jikko yu tax ngeen mën leen a yor te balay loolu ngeen jàppe leen gone yu gaaw a ami yeel maanaam gone yu gaaw a màgg daa ne ana ñeenti jikko yi nekk ci jigéen ba tax mu naqaree yor nee na dalay tooñ njëkk laa mer la gërëm du la yërëm dalay tooñ njëkk laa mer la gërëm du la nee na ana ñeenti jikko yi ngay yor yow ba tax nga mën koo yor da nga koy manal di ko muñal di jëllale tey jéggal daane na ngeen bàyyi kuñ ci joxate soxla nga jàpp ne ab jaam lañ leen jox duñ seeni jaam jaamu yàlla lañ dañoo bëgg ngeen ànd di jaamu yàlla ci dëgg kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen jiitu ca lu ngeen leen tere na fekk ngeen bàyyi ko te tooñ guñ leen tooñ lu mu rëy rëy na ngeen leen ko jéggal te xam ne yéen a ngi tooñ yàlla lu ko ëpp tam leen ko jéggal te nu ngeen leen ëppee doole ba a fayu ci ñoom yàlla ëppee na leen doole ko raw te teewul mu leen jéggal kon dee leen leen jéggal ni leen yàlla di jéggale dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne mën ngeen a dem ba bañ jógee bay dem mu ne leen kaay leen ñu ñëw mu ne xam ngeen lu tax fa ma toll di leen digal lu baax te bëgg ngeen di ca sax di leen tere lu bon te ngeen di ko bàyyi ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne day def ne boo nekkee ci lu baax te sax loolu ab safaan jege-jege jërul tiit jërul mustu jërul daw taxoo koo jóg saw yoon nekku ca daal di wëlbatiku yem ci seex yi ni yéen ñi nit ñëw ci yéen di jébbalu ci yéen maa ngi leen di digal rikk waaye foofu waaye bàyyi koote ci barab dikk ci kenn ci yéen ñee ko jox naa la sama bopp àddina ak alaaxira na nga sàmmonteeg baat boobu mu la wax ba fu ngeen mën a yam ba mu xamante loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla sunu borom daane wasalaamu aleykum wa rahmatullah man wasalaamu aleykum wa rahmatullah ñu jégalu bu baax jërëjëf jërëjëf Cheikh Abdoul Khadar bila isaabin ilal C'est une Production Gran est le meilleur site internet islamique au Sénégal une Production Islam Islam Islam